déglu waxtaanu ak ndénkaan ak ndigal ak tere yu jëm ci cheikh yu jóge ci cheikh Mahamad Muntaxa jëm ci mbokki taalibe ak boo dem mbokki jullit yi yu ñëpp dég maa déglu ko bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi yi ñu ngi am mbégte ci jokkoo yéen ci kaddu kaddu yoo xam ne ci mbégte la jógee ci yaakaar ju sëkk ci xel mu dal muy kàddu yoo xam ne dañ koy jokk rek ci kàddu yi nga xam ne maam Thierno sëriñ Cheikh Awa Balla moo ko moo ko jot moo ko moo ko jottali mboolem mbokk yi mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokki jullit yi muy kàddu yoo xam ne déglu nañ ko bu baax a baax a baax a baax rafet rafetlu ko bu baax a baax a baax ndax suñu njariñ la rek ñépp ñëpp suñu njariñ la eh, kon eh, na ñëpp gën a xam ne kàddu yooyu maam na wax eh, ànd naa ceeg moom ndax man mii ma ko war waroon wax ndax ni mu ko waree ni mu ko waxee rek ni mu nekk ci moom rek ni la nekk ci man waaye alhamdulilah loolu lépp sama tawfeex la sama ndimbal la ndax euh, taxawaay boobu euh, taxawoo ko dul euh, Sëriñ Tuubaa rek la la ko taxawal. kon na ñëpp xam ne fii mu waxee fi la gën a baaxe baax na waxtu wu nekk waaye fii mu wax waxtu waxtu wi fi la gën a baaxe kon sëriñ bi kenn na tabliwul kenn na tabliwul sëriñ Tuubaa kenn na tabliwu ko biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci boroomam rek la nekk diggam ak yonent bi liggéey bii mu fi liggéey itam amul kenn ku ko nattable kenn amu ci amu kenn koo xam ne si am na am na ci sikki sàkk ñëpp teg nañ ci seen bët yëg nañ ko it ci seen xol kon liggéey bu rëy boobu nga xam ne liggéey na ko fi bàyyil na ko fi amuñu lenn doon ci moom lu lu liggéeyam boobu kon liggéey boo liggéeyam boobu waruñoo am jenn yitte wala benn bëgg-bëgg wala benn xememteef bu dul sàmmal ko liggéeyam bi rek te noonu comme am Thierno waxee noonu rek lan mën lan ko mën a sàmmal liggéey bi dañ ci nekk na na na na mu ko bëggee dañ ciy nekk na mu ko bëggee. kon noonu ma ko waxee rek eh, sama làmmiñ la ko waxee ndax noo bokk xalaat ji noo bokk juur gi noo bokk xam ngi kon eh, ñëpp xam ne eh, loolu mooy dëgg lii dëgg mooy nan delloo nan delloo si sunuy xel delloo si sunuy xol góorgóorlu ci sunuy jikko góor góorgóorlu nag ci li nga xam ne lu xew moo muy Pastef lu góorgóorlu ci suñuy Pastef Pastef bi sëñ bi sëñ bi yóbbu war nañu sëñ sëñ bi yóbbu yóbbaale na suñu lépp Pastef bi war na Pastef li nit nit ki war a euh, li dox war a dox diggante nit ki ak jaam jaam bi ak moro ak borom bi lépp sëñ bi war nañu ko lépp teg nañ ci suñu bët. lépp yëg nañ ko ci sunuy xol xam nañ ko ci suñuy yëg ko ci xel kon loolu rek a fi nekk nanu góorgóorlu bu baax liggéeyam bii mu fi bàyyi nu sàmmal ko ko amuñu waru naam benn xemmemte walla genn bëgg-bëgg wala jenn aajo wala jenn xalaat judul eh, eh, lépp nu jëmee ko ci moom jëmee ko ci eh, sàmmal ko liggéeyam bi suñu kéem kàttan kon nag loolu sant sant sant sant ko rek ak sàmmal ko liggéeyam bi moom rek mooy suñu wartif sant gi sax mënuñu ko dañ ci def dañ ci dañ ci boyal dañ ci dañ ci jox dañ koy def ci suñu lépp dañ koy sant suñu lépp dañ koy sant suñu lépp doora nag jëm jub jëm nag ni sàmmal ko liggéey sàmmal ko liggéeyam bii mu fi bàyyi liggéeyam boobu sunu lépp a ngi ci sunu sunu ci ci ci la ñuy mën a amee yiw yiw adduna wu mat sëkk amee ko ci yiw yiw àllaxira ci ëllëg ci la ñuy mën a defaroo ci la ñuy mën a mucce kon nanu góor bu baax ci nun ko mën a sant ci lépp lu baax nu nu tax ca di ko ko sant lépp luñ ko mën a taxawal ci sàmmal ko liggéeyam bii sunu kem kàttan nu nekk ca def ci sunu yitte yëpp loolu mooy dëgg loolu mooy sunu wartif kon ginnaaw nga xam ne mën na koo sant waaye war nañ caa di suñu kem kàttan liggéeyam bii li muy rëy rëy rëy war nañ caa di suñu kem kàttan ginnaaw loolu nag mooy suñu warteef am na nu mu waxee noo xam ni moo moo moo moo moo moo moo ma ci gën a ñor ndax juddoo fii ci Serigne Touba. wëlbati ko di jëf-jëf yi noonam noonam loolu loolu moom mayetuñ ko kenn mayetuñ ko kenn kenn koo xam ne am nga mën yaa ngi yaa ngi moom sa bopp te jàpp sa liberté ba am sa sañ-sañ ci manifester ci ci ci ci ci ci ci lu bokkul ak Sëñ Tuubaa nga xam ne fii moom fii Tuubaa moom jëlee naa ko waaye feneen fu mu xewee itam ci ci senegal dana dana joxe ndigal ñu faj ko faj gi nag du du ci duñ ci doo kenn waxuma laa di di di rey kenn waaye nag yar lay doon képp koo xam ne xam nañ ko ci yow fii ci Touba moom boo ba defee benn manifeste boo xam ne lu ju ñàkk a jublu Sëñ Touba tax loolu moom daañu la daañu daañu dañ la daañu la daañu toj sa kër génne la ci nga génn Touba. loolu rek mooy wax bi jeex na loolu rek moo ci moo ci gënoon am solo waaw li ci des nag mooy noonu rek ni ma waxoon rek nañu góorgóorlu bu baax ci suñu di def sax ci def lu baax lu nu mën ci lu baax ci ndigal ak di def ndigal ak bàyyi tere lu mën ci lu baax ci def li yàlla bëgg di daw li yàlla tere lu nu ca ci lu baax lu nu mën ci baax lu nu ci jëf jëf suñu képp kattan muy ci nga xam ne mooy xeeti jëf yu baax yëpp lu nu mën nañ ko def ngir sante ko Sëriñ Tuubaa waaw te nag góorgóorlu nag sàmmal ko liggéeyam bi sàmmal ko liggéeyam bi liggéeyam bii yàlla képp xam li nga xam ne def def na ko ci daj na ko ci yàlla rek ko xam kon loolu mën si suñu kéem kattan nan ko ko nan nan nan fab suñu lépp sàmmale ko liggéeyam bii du du du jafe ndax boro boromam ko nekkal nam nekkale woon boromam ni la ko ne borom nekkale fii bu waaye dañuy def suñu wartiif waaye moom moom moom moom boromam ko nekkal te moo moom mooy def mooy dindi kon loolu xel daal na ci bu baax waaye nag danoo am wartiif boo xam ne danoo war buñ ko defee muy seen njëriñ buñ ko deful muy suñ càggante goo xam ne eh, neen rek lañuy lañuy indil te neen nga sax mooy mooy jàmm ji kon nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax waaye nag bokki jullit yi bokki bokki taal bokki ñi nga xam ne ñooy suñuy bokki bopp mooy mbokki jullit yi mbokki taalibe yi képp koo xam ne xamantan ci yow nga am manifester di nekk ci loo xam ne jublu ju ju du jublu Sëñ Tuubaa loolu am na am nañ sañ-sañu te bu nu amuloo sañ-sañ bi wax daan ko jéem daan ko wuti fu ñu ko mën a jëlee da da fii ci dëkk bi moom ko fi ku fi ku fi gisati nga nga nga nga nga ni manifester loo xam ne jublu ñàkk jub Sëñ Tuubaa la loolu daañu ko faj waaye nag euh, na seen xel daal duñu duñ rey kenn duñ duma kenn waaye comme comme mën a doon te fitna ju ju mën a tax ju bokkut ak rey ak euh, rey ak duma fitna ju ju jawar rek daañu ko def waaw daañu daañu toj sa kër daañu la génne. waaleykum salaam. yaa koy kon jërëjëf euh, ndigal laa ngoog ñu bokk dégg li ñuy wax samaan wa taatan ñu fas ko yéene taatan